de la république boobu. waaw xam nga a lan moo moderne ci boppam war nañ cee taxawaat lan mooy modernisation lan mooy modernisation loolu question la ak modernisation bi lañ lañ lañ si jublu en réalité parce que tey da nga néew na da nga bëgg a moderniser benn mbir. Mm-hmm. mbir mi nga bëgg a moderniser yow impliqué woo ci ña ko seq acteurs yi principal yi principaux yi. ñi nga xamante ne ñoo ci nekk. di ci dund pendant des années xam jafe-jafe ya fa nekk yëpp nga jël leen teg leen fe dem jël ñi nga xamante ni maîtriser wuñu secteur bi nga jël leen a da ngeen jiital loolu ay tappale la ay caaxaan la ñun li ñuy yor mën nañ koo moderniser parce que état bi li muy yor sax mën na ko moderniser école toi école française bi gis nañ la fa nekk gis nañ la fa nekk état bi sax des dèjà mënul contrôler loolu bay contrôler leneen le président Ousmane Sonko nag mooy ki nga xam ne bu ñëwee ci projet nee na état na daar yi dañuy am li nga xamante ni moo di budget la ñu am tey kenn dootul jël ndimbal di ko jox ay daara loolu daf fiy jeex tey dañoo war a dépasser tey ku am looy dimbale naan da ngay jël di ko jox pour pourquoi pa lu tax ñun ndimbal la ñuy yelloo tey ministère de l'éducation lan mooy tax boolewuñ ci daara yi te pourtant sénégalais am na sénégalais boo xam ne moom il préfère doomam jàng alxuraanul karim kooku su fekkee amul ay moy yi mu jàng yi mu faylee doom nan lay def nga jël sénégalais bi bu nga xamante ni moom dafa bëgg a doomam jàng français nga jël ko di ko fayal sénégalais bi bëgg a doomam jàng alxuraan karim nga ne yow du ma la fayal dama fayal sa bopp loolu injustice bi fa la commencé donc le président Ousmane bés bu ñëwee gëm naa ne lépp loo xam ne métti na daara yi bu ñëwee dina dina jeex bu seen bët xonqoon bu ñëwee seen bët dina weex parce que tey dañoo war a am budget comme ñëpp am ministère boo xam ne fa la ñoo gàlloo tey ministère euh, ministère de la femme jamono mbas mi moom moo doon contrôler daara yi ministère de la femme moo doon contrôler daal daar yi jàpp ci sëñ daara yu bëri tëj leen tey jamono boobu daara yu bëri fa la ñu jaaree tas ci jamono mbas mi ministre de l' éducation fee bu ñu ne éducation kay alxuraan éducation la nasaraan bi éducation la langue yëpp éducation la mais ñu génn ñu ñu ñu détaché ñu détaché li nga xamante ni moom moo di sëñ daara yi dugg nañ ci ministère de la femme injustice foofu la tàmbalee. Ndeye Saly Diop bi mu nekkee ministère de la jeunesse li mu deful seen daara amul façon bundu xatal bu nekk bundu xatal na ko seen daara yi. loolu loolu gis nañ boobu euh, seen intervention bi dañoo ne woon dañoo doon dóor xale yi. ba ñeneen ñi si ñàkk seen la ay caaxaan la. mais nag mais nag am na ay sëriñ ñi xamante ne dañuy dóor xale ñu ñàkk seen bakkan tamit. loolu loolu. loolu ko mbas mi la woon nee na dañuy protéger xale yi ci wàllu mbas meeg yooyu noonu ci wàllu Covid 19 beeg yooyu. loolu la ñu waxoon pour pour ramasser loolu delloo xeex mbas jël xale yi dugg leen ci benn oto dajale leen fa yóbbu leen ci centre centre sauvegarde bi lañ la doon yóbbu fii ñii dajale leen foofu noonu. centre jënd du foofu lañ la doon yóbbu. non centre am na fii centre kii sauvegarde bi ne fii Guédiawaye fii nii. Mhm. am na fi xale yu bëri leen yóbbu leen yóbbu woon dajale leen foofu ba pare nga xeex da ngaa bëgg xale yi euh, kii da ngaa bañ xale yi dajaloo te yaa leen di jël di leen dajale foofu noonu jël leen yóbbu leen ci seen parents yi am na ci ñoo xamante nii sax seen parents yi sax xamuñu sax xale yi fan la ñu nekk parce que da ngay jël benn xale na naka fa xale bi fan nga dëkk xale bi wax la benn dëkk nga yóbbu ko foofu xam nga loolu fa jël sëñ daar yi traumatiser leen man gis naa ci sëñ daar yoo xamante nii sax foofu la ñu jaaree ba léegi bàyyi jàngale parce que seen daar tas na xale yi fa nekkoon yëpp jël leen yóbbu nañ leen te pourtant boobu ñu ngi bàyyi école bi di daje loolu def lu leen neex pourquoi ñu singali daara yi c'est-à-dire stigmatisation bi nga xamante ñu ngi koy stigmatiser daara yi il est mu jeex. Hmm. si doomu si réew mi la ñu bokk ay doomu réew mi la ñu ay citoyen la ñu. Hmm. parce que tey réew mi. man dama gëm ne avenir du Sénégal ëllëg mu ngi ci loxo doomu daara yi man loolu laa gëm parce que bu ñu bu ñu fàttali ko ci ginnaaw doomu daara yi ñoo ñoo ñoo yoroon réew mi suñu mag ñu baax ñi ñoo yoroon réew mi ci modernisation léegi yéen euh, bu ñu lay bu ñu lay comprendre léegi yéen da ngeen sentir benn injustice léegi yéen da ngeen a bëgg a ñu rattaché leen ci ministère de l' éducation nationale wala ñu jox leen beneen ministère à part jamono jëmte dañu wax ni il faut ñu rationaliser tamit les dépenses de l' état modernisation bi man en réalité principe bi d' accord naa ci quoi. Mhm. mais fond bi nañ koy defee laa ci d' mais en principe parce que tamit jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom. Mhm. tey daara cosaan nañ daan jàngee bu njëkk daara daara tradition yi loolu man dama jàpp ne dafay war a jeex. parce que tey mënoon ne boo jàng alxuraan faaw nga tilim. faaw nga sol def tànk neen loolu tëggul fenn loolu bu njëkk benn kii woon nag loolu dafa war a jeex tey mën nga jàng alxuraan ci ay conditions yu baax di sol yëre yu set. Mhm. ku la gis parce que li ngay jàng alxuraan karim nga jàng ki jàng tubaab di sol yëre yu rafet gënu la. gënu la mais dafa war a loolu loolu sëñ daara yi maa ngi ciy woo ñëpp nañu jéem a moderniser affaire bi ñun tamit. Mm. parce que tamit tey da ngay génn ci mbedd mi tey gis xale yi di mbedd mi di taxawaalu ne ay taalibe lañ donte nag ñëpp duñu ay taalibe parce que am na si ñoo xamante ne duñu ay taalibe mais su ay yëre yu koo ci intéressé woon tey boo ne ko taril ma benn faatixa bu baax du la ko taril fàtte fatiha bu baax du la ko taril kon il est temps que kon ñuy jàngale alxuraan aussi tamit nañu bàyyi deedeelu bi nañ ko bàyyi aussi tamit di ne ci benn ruq rek jàpp ne fii la àdduna bi yem nañ ñun tamit dañoo ñu baal ma ci ñenn yi sama ñi ma ko sañee wax aussi tamit dañoo bëgg affaire de ñàkk ñàkk lu kii te loolu pour man il est temps que ñu dépassé foofu moom daal waaw yërëmantalu exactement waaw loolu tamit aussi faaw ñu jëm ko dépassé daal xam nga génn ci ruq yi dugg ci buuxante gaa yi parce que ci réew mi la ñu bokk te tamit gis nga dama ko wax sànq ci benn émission fii sànq gis nga nit ki pour booy revendiquer dara pour li ngay revendiquer nit ñi mën cee jot faaw nga dem fexe ba fa ñu koy fa ñuy falee nga fexe ba bokk ci ñooñu parce que tey nit ki pour mu faj la faaw mu xam sa jàngoro mais bu fekkee da nga sa benn ruq rek sol sa benn si sijaata wala nga sol sa benn kii rek naan daal yi daal du mu sa dem donc man modernisation bi principe bi en principe man dama cee d'accord à cent pour cent il est temps que ñu jéem a revaloriser li nga xamante nii moo di enseignement coranique bi xale yu koy jàng aussi ñu teg leen ci ay conditions yu baax tey am nañu bëri ñoo xamante nii boo leen waxee seen doom dem daara lu ñu lay wax noonu moom sama doom dem daara parce que su fa demee nangam ak nangam dafay tilim dafay nangam dafay nangam te ils ont raison ils ont raison parce que tey ki jël sa doom jox la ko bëgg na ci ay conditions yu baax teg ko ci ay conditions yu baax na sangu ba set sol yére yu set comme ñëpp tey xale bi xëy di jàng école so sol saagam yooyu sol yére yu rafet mais gënul kiy jàng alxuraanul karim te alxuraanul karim moo gën a sell moo gën a set kiy jàng lee gënu gënu ko beneen bi mooy parents aussi tamit bu fekkee ne yow sa doom dafay jàngi daara des fois du sax sangu dafa naan ko ah demal daara nga jëm demal loolu lañ koy wax du sax sangu des fois ah demal alxuraan ngay jàngi demal mais su fekkee français bi lay jàng yi moom bu xëyee da nga koy teel a jiyee mu jug sangu ba set nga solo ko yëre yu set jox ko xaalis defal ko lépp ne ko demal jàngi su fekkee ngoon la day jàngi alxuraan ko léegi moom bon benn kii am lay kii lay sol bu des fois sax du sax yëre yu kii lay sol c'est-à-dire xeeb gi tamit foofu la xaw a commencé Sénégal moom des fois doo comprendre quoi quatre-vingt-quinze musulman quatre-vingt-quinze pour cent musulman bi ñuy wax mu xam naa ni moom c'est à revoir quoi. war nañ ko waxaat bu baax a baax. bon euh, ma defaat benn kii dem na complément gis nga injustice bu nekk ci wàllu enseignement yi. Hmm. dafa large. gis nga d'abord fekk parents yi d'abord c'est la société da ngay dugal sa doom ci école saa buy dem jàng ci da nga ko jox argent de poche. Ah. Hmm. da nga ko jox wala nga luwe sa oto. tag nga abonné ci taxi. moo koy déposé di la ko indil. waaye nag bu fekkente ni daara la nga sànni ko ci daara boo ko nemmeeku sa d'ailleurs si ban situation la nekk. nga bëgg suba moom sa doom boobu noonu di dem yelwaani ji ki nit kii moo war a am mu am njabootam mu war a dundal plus de combien euh, cent personnes. ba pare nga bëgg sa doom ne nan dafa mënoon nekk d'ailleurs en certain moment. bu fe bu ñuy defee comparaison loolu dafa dafa yënul maanaam. Mm. deuxième chose mooy moo daara yi tamit d'une part ils sont responsables gis nga boo bu fekkee ne da nga jël comparaison euh, géejuwaay fii nii ñaata daara moo fi nekk boo fi nar a tabax benn daara nga nar koo def daara moderne est-ce que ñoom tamit dinay nangu ku nekk bàyyi sa daara pour ñu ñëw regrouper xale ci benn côté pour mun leen jàngal léegi xam-xam boobu ku nekk dina gis ni man bu ma demee comme ñu dafa sous forme d'école on donne juste l'examen je fais la comparaison avec les écoles catholiques gis nga école catholique dañoo dañoo organisé wu donc mm-hmm. Mm-hmm. ubbi école di jàngale non seulement français la ñuy jàngale mm-hmm. mais dañuy def xamante ne moom moo di leur leur promotion cours privé euh, catholique boo fi gis dañuy defar seen promotion moom moo di ah, seen religion maintenant maintenant bu fekkee ne ñoom dañu koy def ñoom ñu nangu boolee seen i doole paroisse yi nangu boolee seen i doole est-ce que ñoom daara yi tamit dinañ mën a nangu boolee seen i doole pour yow yi nga am taalibe yi nga am ñii yi nga am kii niveau bii la toll ak kii niveau bii la toll ñu regrouper leen def leen boo xamante ni moom moo di école de formation franco arabe la tudd woo wala daara moderne lay tudd woo ñoom ñoo xam. Mhm. maintenant ku nekk nag. Euh, kii bu fekkee ne moom daara bu mu yor ñu jox ko benn poste mu gérer ko ci école bi keneen ki yore gérer ci école bi mais pour mun leen réussir ci loolu tamit yaakaaruma ni dina nekk pour eh, gouvernement yi loolu tax na yaakaar si sama yaakaar loolu tax na li bokk na ci loo xamante ne moom moo tardel bu baax a baax seen modernisation boo xamante ne dañ koy wax moo état day mujj obligé beddi leen fi mu dem ci benn eh, coin tabax fa benn immeuble mu ne dañuy def daara def seen inauguration di xaar nag ñan ñoo fa war a dugg pour eh. bi sax am na lu mu lancé mooy cinq cent cinq daara yoo xamante lance na ko waaw mm-hmm. cinq cent sëriñ daara yoo xam ne na ko pour jël leen pour ñu mën a jàngale dèjà euh, actuellement ni ñu ci recrutement yi mhm. toll ci cinq cent daara yoo xam ne vraiment loolu c'est à saluer mhm. parce que tamit vraiment c'est une bonne chose ña fay yëpp ay fonctionnaires état la ñu doon moo leen fay jamono bii seen daara yu ak mhm. benn école war ko non non non non non non non c'est-à-dire mooy yow na nga nekk na nga am daara di jàngale rek yow na nga am daara nekk ci comme tey ma nekk dama daal di jàngale man nga xam ne maa ko moom. tey su fekkee dama jël nañu ma foofu noonu. état bi moom may fay may continuer jàngale sama daara waaw ça n'a rien à voir avec état mooy tabax ak yéeg yooyu noonu mais l'essentiel mooy na nga nekk ci daara boo xamante ni c'est reconnu si EF bi nga xamante ni moo moo ko nekk mhm. na nga nan en tout cas daara bi na exi na am na na am existence daal na nekk na am existence waaw na am na nekk nekk rek léegi état bi moo lay fay ngay jàngale ngay jàngale moo lay jàngale quoi ah, loolu tamit c'est une bonne chose boo xam état def na ko ci ñoom la ñuy kaas rek mu état mhm. jël en charge li nga xamante ne mooy daara yi préoccupation ah. waaye nag ba léegi day des parce que loolu bu ñu ko defee noonu daar ubbi daara yomb na de man mën naa bisimilah rahmaani rahim rek. Hmm. man a xaaral non non non non non day am test day am test. parce que pour nga am dafa am lu ñu tuddee attestation boo xam ne moom attestation boobu foo ko dem ci IEF bi ñu natt la xool ba xam yow mii est-ce que tey apte d'aptitude waaw mhm. jeex na mi exactement mi ngi attestation d'aptitude parce que est <laughs> euh, li ñu wax sànqal Sagna moom laa remarqué muy que man maa ngi doo gis que ni mouvement des doomu daara patriotes que benn mouv doomu daara gis nañu fi ay mouvement étudiants yi mouvement enseignants yi wala leneen ak leneen mais doomu daara yi maa ngi doo gis que yéen avant création mouvement bii nii am ngeen li ngeen xam moom mooy unanimité maanaam dañ ñëpp d'accord ngeen ci yéen doomu daara yëpp d'accord ngeen ci taxawaayu mouvement bii nii parce que gis naa ni euh, manque unanimité boobu mën na andi ay quelques conséquence unanimité amul fen moom unanimité moom yàlla may ko kenn mhm. ñëpp àndandoo xool benn kii amul fen am na ay sëñ daara yoo xamante nii mais ils sont avec le président Macky Sall mhm. bokkuñu kii parce que gis-gis yi bokkul principe yi bokkul ku ci nekk ak li nga la boo xamante mouvement bu démocrate la ku ci nekk dañ leen nangu li nga xamante ni moo di sa gis-gis parce que aussi tamit ku ci nekk am nga droit ànd ak ku la neex mhm. tey mouvement bi nekkul doomu daara yëpp ñoo ci bokk déedéet comme ni mu bokkee comme ni mu nekkee ci mouvement des élèves étudiants ay maire yooyu noonu am na fi ñoo xamante ni Pastef la bokk am na ñoo xamante ni APR la ñu bokk mhm. mais également am na ñoo xamante ni PDS bokk mhm. mu mu daab noonu la demee rek mais nag dinañu fexe rek ba gën koo yaatal ba la maximum ay cellule daara yi nga xamante ni parce que jamono bi ñuy commencé ubbi ay cellule département bu ci nekk ñu ngi fexe samp fa li nga xamante ni moo di cellule par jéem a recenser sëriñ daara ya fa nekk jéem a xool naka lañ leen di convaincre pour ñu dugg ci li nga xamante moom moo di mouvement bi. merci li tax ma posé question boobu sax pour am sa jàngat ci côté boobu noonu boo gisee nee na am nañ amuñu unanimité boobu noonu seen biir mm. euh, ñàkk unanimité boobu te ñoom ñiy kaas li nga xamante ni moom mooy modernisation daara ku leen jàppale ci wàllum daara te amuñu unanimité boobu loolu ban conséquence la mën a am seen biir ñoom doomu daara yi. bon euh, yaakaar ma ne dina mën a am conséquence. du am conséquence parce que euh, lenn kese moo fi ne ñoom ñëpp am. Euh, objectif bu ñuy atteindre objectif même yéene la ñu am maintenant yéene boobu noonu naka lañ ko mën a faciliter ci état bi moom moo di ñoom soit ñoom nee na sànq état bu moo commencé dugal modernisation des daara daf leen di beddi te man am na benn damaa fàtte jaune bi boobu laa nekkoon di wër si sama téléphone fàtte mais am na foo xamante ni état daa tabax ba pare état état bi bu mu tabaxee ñu war a ko inaugurer léegi inauguration boobu noonu fan la mujjee ak ban euh, daara moo fa war a dugg léegi nag foofu moo war a indi foofu moo war a am divergence yu nga xamante ni ñoom duñu ko mën duñu ko duñu ko mën a wax maintenant ñoom euh, mouvement boo jëlee seen boo comparé ak mouvement des enseignants rek donte am na enseignant républicain am na ma enseignant réew mii am na enseignant Pastef am na enseignant xam nga loolu amul benn njeextal ci fonctionnement mm. pédagogique de notre système mm. Mm. scolaire donte période de grève nag bu fekkente ni yow sa syndicat mu ngi grève yooyu dañ si daal di profité rek dugg ci pour bañ a enseigner pour gën a affaiblir état bi parce que plus grève di bëri boo xoolee 2011 lan moo gën a sonal Abdoulaye Wade ak Kalilou Diallo enseignant yi la enseignant sonal nañ Abdoulaye Wade trop en 2011 à chaque fois dañuy daal di mënee seen i grève ñoom Mamadou Lamine Diante dañu daal di mënee grève boo xamante ni loolu Abdoulaye Wade tax dem na ba amatul contrôle ci eh, école nationale. Mhm, loolu moo gën a faciliter loo xam affaiblir Abdoulaye Wade parce que nit ñi dem nañ ba ne. bu fekkante Abdoulaye a nekk na président rek école année bi des des blanches. kon léegi foofu euh, boo xoolee ñoom tamit daara yi. tant que amuguñu euh, mënuñoo am consensus à cent pour cent mais tant que nanguñu foo xamante ni moom moo di état bi organiser ñoom ñu dem am benn assise il faut mu am assise nationale de euh, euh, euh, des daara bu ñu defee assise nationale ñu identifier la difficulté principale de des daara maanaam école coranique bu ñu identifier seen difficulté identifier par zone boo jëlee ñu ne côté Mbour am na ay daara yi fa nekk léegi léegi Mbour lu mu yaatu yaatu yépp donte dugg na ci ay dëkk dëkk dëkkaan yi walla même ci biir école élémentaire yi ñu accepter intégrer foo xamante ni moom moo di eh, saal yi xamante ni ça sera pour hmm. eh, eh, l'arabe wala école école mixte sax mun na nekk école mixte école mixte boo xamante ni moom bu fekkee ne c'est les village yoo xamante ni c'est un peu reculé hmm. munu ñëw jógee si seen village du ñëw ci camp département yi ñoom ñu organiser fa école mixte yi xamante ni non seulement boo jëlee lycée El Hadj Malick Sy la mais en même temps seen mu ngi ci biir boo jëlee village yooyu noonu xamante ni dañuy def sem mais sem bi day am partie française beneen bi arabe kese lay def loolu état moom mën a structurer loolu ba pare day nekk sous la supervision d'un principal principal boo xamante ne dina leen mën a encadrer boo ñoom tey saa bu ñu defee seen jàng dinañ mën a dem partout di def seen concur concur yoo xamante ni concours alquran la léegi nag ñoom à l'antenne ville yi ñoo war a nekk problème ville yi naka lañ mën a nekkee problème comme sànq lu ma ko doon waxee rek moom bu amee daar du nangu daaraam ñëw fii fusionné ci beneen daara boo mu mën a mm. nekk loo xamante ni benn cellule bu mag wala mu am benn euh, mu nekk benn université bu mag ba euh, foo xamante ni moom moom la ñu mën a parce que boo jëlee exemple université euh, bu Touba foo xamante ni alxuraan kese la ñu fay jàng xam nga dañ koy organiser ok dañ koy organiser ba ku nekk mun si gis sa bopp mais fii Dakar daara yi boo ko nar defee nag ku nekk mun na gis ni man bu dee man kese la lu ma mën a am ci sama budget bu ma demee ci école bi sama salaire kese laa ci mën a am mhm. donc loolu dee nekk jafe-jafe xamante ni mën nañ ko si sóoraale mais comme par exemple ñoom seen ñàkk ànd bi yaakaar ma ni loolu mën na eh, am benn impact ci euh, structuration des daara modernes parce que l'objectif benn la quoi ñu ñoo bokk benn objectif mooy fexe ba jafe-jafe yi ñu sàmm ñu jëm ko saafara kon donc loolu moom je pense pas que dina benn impact boo xam ne dina am ci kii bi l'essentiel rek mooy la majorité ci ñun. Hmm. na ñu ànd mais unanimité unanimité moom yàlla muy ko kenn moom la consensus moom total. moom yàlla may ko kenn xam nga état bi moom daanaka sax li mu yor sax mën na koo mën na koo lijjanti bu ñu xoolee enseignement état bi sax mën na koo lijjanti parce que jafe-jafe yi chaque jour jàngalekat yi ñu ngi grève patron état lu ma mënul lijjanti amul hmm. ñàkk volonté dong la waaw ah, volonté bi la c'est le seul qui a le monopole de la violence waaw ah. moom kese bi quoi moo des tout de suite bu la ne ah, nañu arrêté tout de suite nañu coupé par force nañu coupé hmm. bu ne nañu géej lu mu yaatu yaatu yëpp ñu ne coupé leen kii bi courant si benn kër gi force courant bi dañ koy coupé. léegi léegi ñoom ñàkk volonté. donc moo fi ne ñàkk volonté la. bu fekkee ne ñàkk volonté amu fi mais Comores dañuy jàng français non mm. les Comores îles dañuy jàng français mais loolu taxul seen daara dañoo moderne seen jàngale arab dafa moderne parce que seen langue déjà arabe la. léegi nag malgré tout ñoom am na volonté am nañ ci volonté ba accompagner loo xamante moom moo di système boobu mm. Mauritanie ji. ba léegi nag ils ont réussi ça Sénégalais dañuy quitté fii nii di dem jàngale ji si daara Mauritanie parce que dañu leen organiser ba moderniser leen. Mm-hmm. léegi ñàkk volonté dong moo dal suñu état mais sinon nga identifier nga ne fii euh, boo jëlee je prends juste l' exemple xamante ni jeunes yoo xamante ni sont ñun ñëpp xam nañu la boo jëlee Kokki bu pensez ko pour moderniser la situation de Kokki dana jafe jafewul ñoom déjà xam nañ am nañ ay jàngalekat. accompagner leen ci les moyens accompagner leen ci la dotation léegi nag localité yi xamante ni amaguñu loolu gisuma foo xamante ni ñu ne fii am na eh, daara bu mag boo mel ni mu ngi si jéejuwaay eh, eh, comme Koki gisuguma ko loolu amagul ay daara yu ndaw ñoo fi am léegi daara yu ndaw yooyu noonu lan moo tax doo leen boole balaa te li si gën a bizarre daara yi tamit dañuy jël yow ngay tabax duggagoo sa kër ñu ñu àll nga kii ñu dugg foofu noonu di jàngale léegi nag yëfu dee deetlu lu boobu ah, noonu gis nga ni ko xamante ne mënuloo ku xamante ne mënuloo mënuloo ko mënoo gérer bu nee man non mën naa bisimilahi rahmaani rahim xaaral ma teg sama daara boo mënulee yaa xamal ni yow mënuloo nga jege ñoo xamante ne ñoom ñoo mën ngeen ñoom ñu am mm. seen i doole mën a jël immeuble bu baax mën a fay teg euh, xale yi pour ñu mën a toog mais bu ñu ne la non booy jàng alxuraan si suuf nga war a toog. Hmm. mais ñoom ñoo gën a indi kii d' abord la difficulté ban moment nga war a toog si suuf même bu fekkee ne jàngale alxuraan jamono jooju lan moo fi amoon. Hmm. ay jamono yoo xamante ni c' est mille huit cent yoo xamante ne li fi amoon léegi temps situation dem na ba changé mais da ngay adapté ci situation bi. waaye ñu ne la léegi loolu moom man je suis pour kii ñu ne la kii ba léegi nag non damay jàng alxuraan fa ma toog si suuf da ngay si suuf waaye nag da ngay laal loo xamante ni moom c'est adapté nga toog si suuf noonu mm. parce que ay temps lu ñu doon tabax suñu jàkka yi ak léegi lu ñu takka jàkka yi est-ce que benn la dañu adapté si situation bi nag méngoo kii bi dox leen bi si jamono jërëjëf ñu jàll ci leneen fàttali leen rek keneen ñu ngi dalal ki nga xamante ni si moom mooy euh, Baye Dia bokk ci mouvement bi di doomu daara les patriotes euh, comme ni ñu ko waxee les patriotes euh, am benn xeex bi nga xamante ni sumboon ngeen ko muy lu jëm ci lever blocus bi nga xamante ni moom moo nekk fële ci kër Ousmane Sonko ñu gis jamono ji nii nii blocus boobu daal dina dañ ana ban jàngat ngeen am ci mbir moomu nag ngeen ko gisee. waaw jàngat bi de moom je pense li Ousmane li président Ousmane Sonko laay wax rek ñoo ko defoon ñoo ko dindi point mu ne ko ñoo ko <laughs> ñu xëy dindi ko ba léegi nag dégguñu Ismaïla Madior Fall mu wax ci dégguñu aussi Antoine Diome mu wax si lu may Abdou Karim Fofana dégg nañ ko dégg mu def benn déclaration boo xam ne man bi ma ko dégloo sax dama doon na bi ñu ko laajee lan moo tax ngeen bool defoon blocus bi daf ne le président Ousmane Sonko nit la koo ne dafay def appel à l'instruction mhm. te gis nañ ñu saa bu defee ay dajaloo rek dafay am ñu fay dee. te nag wax na souligné nag kan ma rey rey yi wax na ko souligné nee na Ousmane Sonko bu ñu nekkee ci biti. trouble à l'ordre public day am nit ñuy ñàkk seen bakkan day am nangam ak nangam ma koy laaj nag ne ko événement yi passé événement juin yi passé nii ñaata nit ñoo dee boobu Sonko fan la nekk est-ce que Sonko mi ngi woon ci biti bi loolu bi am Sonko biir yem la ko fekk te ñoom ne dañoo waxoon l'objectif c'était pour lan indi fi lan dal le président Sonko nekk ci biti ne ci biti yëpp moo ci yem nit koo xam ne da nga ko te mi ngi def déclaration di wax ak ñi nga xamante ni moo de ay militant am nangam ak nangam kon blocus boobu ban njëriñ la am amul c'est-à-dire ñoom dañoo dem ba ñoo mën ridicule dañuy dem ba la ñuy ridicule si seen bopp chaque jour dañuy pièce bi ñu teg ñoom ñoo ciy daan waat le président Ousmane Sonko wax na leen ko dès le début dossier yi seen dossier la yéen koy tëgg yéen a koy fecc ñoom ñooy def ba léegi ba léegi Ousmane Sonko moom njëgalu ko sax yaram moom njëgalu ko sax yaram moom mi ngi def ay déclaration wax ak ñi nga xamante nii moo di ay militant am léegi wax nañ ñu gën a jàpp ci li nga xamante ni moom moo di projet bi parce que blocus bi ñëpp xamoon nañ ne mënut a wéy mënut a parce que tey dispositif sécuritaire ba fa nekk loolu mënta a ñaata million ñaata million wala ñaata milliards lañ mm-hmm. fa yàq. liñ fa liñ fa yóbbu ci dispositif ci benn nit ci benn nit ci koo xamante nii deful dara reyul nit sàccul deful dara nga tëj ko fu nga jàpp foofu da nga koo tëj te ñëpp xam nañ ne constitution bu Sénégal dafa garantir bépp citoyen nga droit d'aller et de venir dem fu la neex nga jël ko teg ko ci loo xam ne c'est une base illégale tey normalement bu ñu nekkoon ci en état de droit justice wala juge moom war a desal na li nga xamante nii moo jël benn décision na diwkat dañ ko war a ne ko bu mu génn lii ak lii ak lii ak lii ak lii mu mën tax ñu def ko lii mais ba léegi nii gisuñu benn décision justice boo xamante ni mhm. def nañ ko ministre Antoine Diome ñoo jël seen i mesure ne dañ koy arrêté parce que kat nangam ak nangam mais tey bu fekkee ne Ousmane Sonko dafa def à la lan moo tax jëlee ko yóbbu ci kaso bi appel à l'insurrection koy ko def sa place kaso la mais da ngaa def appel à l'insurrection mais dañ lay jàpp mais dañ lay yóbbu kaso mais sa kër lañ lay yóbbu mais ñoo lay garder xoolal man ñi fi def appel à l'insurrection yi am nañu tey ñu ngi ci kaso ba. nga ne la Ousmane Sonko mais dañ ko jàpp parce que dafa def appel à la def parce que dafay woote appel à la nga jël ko yóbbu ko këram ne danga koy garder bu ñu nax senegal yi quoi nañu bàyyi sénégalais yi ñuy caaxaanee di leen fooyee parce que état c'est dafa nekk lu